وكثر الخيرات هذا البلد ورزقه والتكفي عن أكديم ولتثبت فيه جماعة تخيم الصلوات الخمسة دأبا ياكيم ولتثبت فيه جماعة تخيم الصلوات خمس دأبا ياكيم ونجنا من سر هذا زمني wa sharri xayrihi wa kulli fitani wartaqinaa shara nasaara wal yahuud wa sharra ibliisa wa kulli zil juhuud wartaqinaa shara shara nasaara wal yahuud wa sharra ibliisa wa kulli zil juhuud wal jinni wal dajaali wa soodaani في سرق والمغرب والبيدان والجن والدجال والسودان في سرق والمغرب والبيدان وكرما بالأرض وسماء في ظاهر وباطن أقدما أيا لطيف يا كريم يا جليل أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا برزقك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووافقنا لثواب وصلاح والتغنا بفعل ما أحببت والتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا من أحد دحرا بما دارا بما ليس يطيق يا سمد ولا تكن مبتليا ناعات دارا بما ليس يطيق يا سمد ورنا تزيل البلاغة في كلتا الدارين ونجاها بجايز اليوم وجاي من ولد noonu la ñuy sant Seexul Xadiim suñu yaakaar tey ëllëg di ñaanal sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëriñ Seex Jëmb mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi lool te wér di sant suñuy jàmbaar yi soxna maam Isa en lu café ibnu sëriñ Moor Paate Xëri ibnu Seex Masamba mu yàgg fi loolu te wér suñu rakkam bu baax ji muy soxna Ayda Mbàkke moom sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Baara moom borom Touba nekk ci sama gannaaw di suñu wàjjur di suñu kilifa fii ñuy liggéeyee borom Tuubaa muy kër Sëñ tubaa gi bañ fi ñëwee ba léegi ñu tekk suñu loxo ñoo ngi koy siyaar di ko ñaanal tawfeexu borom Tuubaa yal na ko gàttandu ci barke xasida yi ñii ñaanal góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla defal ñu tawfeex ak fekkeek ba ñëwaat fi jotaay bii mu jotaayu maam Cheikh Ibrahima ñoo ngi siyaar suñu siyaam yi nga xam ne dafay yabal njabootam gii nga xam ne njaboot ak Cheikh Ibrahima la te képp kuy liggéey borom Tuubaa ba jaar ci Cheikh Ibrahima sam xel war naa mën a dal bu baax a baax. kon ñoo ngi sant yàlla bu baax baax di wax alhamdulilahi rabbil alamina ndax yàlla kat dimbale nañu defal ñu tawfeex ndax dañoo liggéeyal borom tubaa ba ñax ñu toog di soññante suñu biir kenn ku ci ne di wax li nga xam ci sëriñ bi ba yàgg ñu yëg ne ñun dañoo war a def bisab maam Cheikh Ibrahima biñ ko waxee tim mbooloo mi nangul ñu ko maanaam ñu xam ne Cheikh ay mbiram dañ ci natt suñ jëmm yi ba xam ñun dong yi di liggéeyal Serigne Touba fii ànd ak maam Isaac son Aida mii fan lañ toll ci Cheikh Ibrahima Fall moo tax keroog ba ma koy wax fii si jataay bi yàlla mi amul kumba xam ne ma dama ne buñ ko tuddee kenn Cheikh Ibrahima bisam bi duñ ko tuddee kenn duñ ko tuddee kenn fii la ñuy toog ne bis bi kenn ayewu ko yàlla ak ay Cheikh Ibrahima Fall bisam la yaakaar naa bañ tey doog a jóg rek mujj na leeral ay mbiram waaye biñ demee si suñu seex nim ñu dimbalee waatee wanaa ñu waneen yoon biñ àndee yaa yaa yaa yaa Anta Jaaj mi ndax sëriñ bi ñoom dañoo mat ñoom dañoo mat sëkk ñun rek ñoo des waaye ñoom dañoo mat surtout waa kër maam Cheikh Ibrahima ñoo ngi fasandee ne yéen a kóllëre ngir jëmi Cheikh Ibrahima xam ne ñun gëm nañ ne bis bi Cheikh Ibrahima moo ñëwal boppam sikkuwuñ ne ab sëtam moo ñëw dañ ne Cheikh moo ñëwal boppam ndax liñ si doon natt di ko si jàngat gis nañ ko si gis nañ ki bu wér wér te Cheikh Ibrahima Fall damay damay wax ne képp ku gore waxuma la waxuma la jullit ñi waaye kuy ku gore rek war ngaa delloo si Ibrahima Fall njukkal ndax bu toon moom kenn du xam sëñ Bàmba ñun nii ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa ba mën a am pastéef di liggéey dama koy wax gone ne nañ xam ne buñ liggéey si ndox yi ba noppi ne addiyee borom Tuubaa donte dañuy am li ñuy soxre si Ibrahima Fall tamit am na gore gu tol ni maanaam jël wàllu si Ibrahima jox ko wàllam ndax xaabil moo njëkk rey nit moo njëkk a jooyloo wàjjuróom moo njëkk sàngara suñu borom ne ko yaa ray sa seex bi waaye ba àdduna tukki ku rayati nit am nga si wàll waaye Cheikh Ibrahima Fall ba àdduna tukki ku ñaqate borom Tuubaa ba nag addee borom Tuubaa suñ Tuubaa dana ko jox wàlla muy bëne mu teeku kon nañ nangu ne naar bi moo fi indi xorom si ndax si Issa Diène wax na suñ Tuubaa sant nañ la Mbàkke di la gërëm lu ñu am di la ko jox mu ne ko lu ngeen ci jublu Issa mu ne ko xanaa li ñu defal te mu jommuñu mu ne ko sàllaa du taxul ngeen jot sama bànneex ñu ne ko ndaxam nu ñuy def Mbàkke ba jot sa bànneex mu ne ngeen ne naar bi moo fi indi xorom si boobu Cheikh Ibrahima Fall lay joxoñ ndogu yii nag ñoo ngi ñaan ngir jëmbi borom Tuubaa ngeen ñaanal ñu ak suñ jàmbaar ji maam Isa nu ñu mel moom la dama ne ko loolu kum doyut leneen du la doy ñun bokku ñëw ñuy wër-wër la ñun dañuy wax ne suñ jëmm yi nu ñu mel maam Isa Mbàkke Ahmadou Café la du kenn ndax bam bam ñuy nàmpatal ci suñ Tuubaa amuñ woon ndigalal di jël di jël di jël micro di wax ci suñ Tuubaa waaye fee la ñuy wax ca mbaar ma wax leen maa leen wax la te ku wax dañ la dégg kon ñoo leen di dagaan ngeen ñaanal ko mu yàgg fi lool te ak dong ak soxna Ayda mii sëñ bi dem bu ngeen demee ngeen ne bis bii bisam la ñun amuñ ñu amuñ keneen kuñ koy jagleet bis bu jotati sëñ Cheikh moomu jox nañu ngor goo xam ne ak kóllëre goo xam ne saa bu ñëwatee ñaar fan yi seen waajur lañ koy féetale amul keneen kuñ ko tuddee te tim dañ fay ñëwaat ci guddi gi nii ndax am na bool buñ ko tuwal fee pour jox ko addiyee fasante waan kóllëre mu teel ñu ko te samp ñu ba maanaam liggéey bi ñu am ci ñu am jàmm am ci tawfeex ñoo ngi leen di dagaan mbooloo mii di ànd ak maam Isa ngeen dimbale ñu ngir jëmmi borom Tuubaa leeri Cheikh yi ngeen toog ak Baye Fall yi ngeen ñaanal mbooloo maam Cheikh Ibrahima Fall mii di ànd ak soxna maam Isa yàlla dëgëral leen kàttal leen ndax kat dimbale nañ soxna si ndax soxna si kat dafa woote waaye bu doon jëmmi boppam kese lim bëgg mënu ko waaye bi mu wootee mbooloom ahlu kafe mi bis bu ne dana am ku ko jaayante te ka ka jaayante lu mu mën a yor dana ko def ci bis bi daa jël juróom-ñeen fukki daayiri ne juróom-ñeen fukki daayiri man ma maam Isa jaayante naa ko bis nekk tey bis set na ñetti nit ay ñu ne nan lañ koy defee mbàkk mu ne na am ku ma demal kër Sëriñ Tuubaa Daaru Manaan am ku ma ñëwal fii si jumaa ji si yokkub Seex Sidi mu daal am ku ma nekk ci kër gu mag ma nekk fekk moom soxna Ayda na ma nekkal kër Sëriñ Tuubaa Daaru Manaan ma nekk kër gu mag ci Sëriñ Muntaxaa boobu sax Sëriñ Muntaxaa nekkatu bi sëñ sëñ sëñ si Sidi mu daal moo fi ne mu ne ma nekk fii ndigal Seex Sidi mu taal soxna may bu sa nekkal ma sa yokkub Seex si mu taal bi ñu ne ko loo si jiwul mu ne danga xam ne yoon wi gën a gaaw ci liggéeyal borom Tuubaa mooy ñaqal borom Tuubaa te mooy Cheikh Ibrahima Fall loolu soxna maam Isa Mbàkke wax ba mu ko waxee juróom-ñeent fukki daayira ba bam leen wooyee keroog karne ba man la ko jox maa ko njëkk bind mu ne ma Aliou kuy ayee nag ndogul Cheikh Ibrahima Fall yi duñ la yërëm la sëñ Saliou waxoon ñu ne ko lu sëñ Saliou wax dane ki liggéey sëñ Tuubaa man Saliou du ma la yërëm ñu ne ko lu tax Mbàkke doo ko yërëm mu ne liggéey sëñ Tuubaa fay ëllëg dama kaa xam moo tax kenn du liggéey sëñ Tuubaa di ko ñaqal ma ko yërëm sons na bis bi nag ginaar lay tàmbalee ba gileem ndog yooyu jombali wuñ ko dara dikk indi kër Sëñ Tuubaa ñu ne ko loo si julli mu ne damaa bañ nit di dox jógee ci jumaa ji ba dégg mu sone montre bi sone nee na bi ñu sonee pour dog nee na mu yërndu kër Sëñ Tuubaa gi seen ëtt bi weex tàll gisul kenn nee na tas yaakaar jooju suufal Sëriñ Tuubaa ñu tas yaakaar dongub Sëñ Tuubaa wala soppee Sëñ Tuubaa bi loolu laa bañ maam isa moo tax ma bëgg fee samp ay ndog kon ndog yi yoonu murid yëpp ku ne xam na ne mën nañ ko indi di ko jox xalifa Sëriñ Tuubaa waaye ndogu kër Sëriñ Tuubaa yi si maam isa man laa ko njëkk gis man Aliou fii tim bañ fi nekkee mii nekk juróom-benn at juróom-ñetti at bañ ko tàmbali ba ak soxna Ayda mii ak soxna maam soxna Anta Diagne mii soxna si bam fi ñëwee ba léegi kenn kenn fekk ko ko si saa bu ñëwee lu mu am dana ko sëb ak waa këram kon loolu ñoo ñii leen koy leeral bu baax a baax di leen wax tamit aju mu ji jot ñooy seetal bâtiment yi dañ leen umbil yëpp ñu liggéey ji borom Touba waaye ñun bëgguñ fi benn cër lu liggéey Serigne Touba biig bi ma jëwriñ ji wooyee ne dégg naa daa am lu ngeen def kër Sëriñ Tuubaa ma lañ fay def kenn du ko tàggu ndax pàkkab Sëriñ Tuubaa la ñu fi joxe ay ndog ba mu yàgg ñu am bisab Cheikh Ibrahima Fall bisab Cheikh Ibrahima Fall duñ ci tàggu kenn di ko si laaj ndigal buñ xëyee dañ fa baas dañ fa kennal borom Tuubaa ba Cheikh Ibrahima Fall ñaan ñu dem mu ne ma loolu àll jëru tàggu ndax lool loolu loolu rek a tax ñu sant kër kon li ñuy def ñeme nañ ci bu baax a baax ñoo ngi leen sant di leen gërëm di sant yaa Anta jaañ di nga daaneel ak xale yi ñu boole ak eh, yaa ndeel baaxum yaa Anta nag ñoo ngi leen koy ñoo ngi leen koy dagaan ngir jëmmi borom Tuubaa waaw yaanta jaañ nag ñoo leen koy dagaan bu baax Mbàkke Faal Njaga ndax kat ko ku jar a ànd la ndax mag la moo xam ne wax dëgg yàlla am Sëriñ Tuubaa moom xool asamaan la jër boo xante waaye nag suñu borom mooy wax alxuraan faxalu li ma yore li ma soob laay dem ci jaam di kenn du ci man dara yaante mii dañ ñoo boole moom waaye saa bu ñu jaaxlee bu dee dëgg neex yàlla saa bu ñu jaaxlee ci ndog yi ba problème nar am cóol mu am lu manqué buñ geesoo moom kese la suñ xel yëpp di dem te buñ ko ko waxee na na nañ ko bëggee noonu la koy defee kero bi ñu jàngal man laa ñu war kaa jëlee kër Sëriñ ku baax ki woo ma son si ne ma son maa is ne ma man laa de li ñu ma jox bëriwul fii laa ko laal bàyyil ba suba yaante ne ma jëri loo bëgg àlli ma ne ko man de man laa moom bu ñu amoon bu ñu amoon ndigal dañu am ay man laa mu ne loolu Sëriñ dana indi léegi ak Cheikh Ibrahima Fall la dem jël ab oto duy man laa yëpp ya ya nekk seen kër indi ko boobu ba léegi génnu ci kër gi biñ ko waxee ndoog yi moo ma ñaan ne ma nañ ko jox Sëriñ Seex ndax sama dëkkandoo la te moom laay xool jëmmam ci Cheikh ma ne ko yaa anta nangu lañ ko lam ñu waxoon na gis nañ ko kon ñoo ñaanal suñu borom dafa ko tawfeex dafa ko mbooloo mépp ñu dugg ci nii ñu ko duggee si bisimilah rahmaan yàlla nga egg si alhamdulilah rabbil alamin yàlla yóbbaan ñu si jàmm ba buñ ko di ñaanal yaa Mariama Gueye xam ne mooy jëriñu waa kër Sëriñ ku nekk Sëriñ Tuubaa di soxna yaa Mariama Gueye mooy sa jëwriñ ñoo ngi di la ñaanal tawfeex borom dox gandu la am na ku ñu waxoon ne day kennal borom Tuubaa si Ibrahima ci jotaay waaye bu ñu noppee dim liggéey bi jeexagut ndax sëñ bi dim toogaay bi ñoo gudd na ndax ah, moom dafay naroon a jaar ci ndigal rek dem waaye ndigal da ngaa dabaat pour ñu ñaan jëmmam ji dogee fi waaye kon Fall bu ngeen yëkkati ay kàddu ba noppi dana am ku fi bëgg a kennal Cheikh Ibrahima Fall seen maam ju baax ja waaye bu ngeen ñu ñaanalee ñu ànd ak ñoom ba ba mu noppi rek ñu ñaan ñoo ngi ziare xale yi doon yëkkati xasida muy waa Soxna Ayda yi di goo xam ne nooru daari la di jàmbaar loolu ba leen ko waxee ñu ànd kaak ñun kon ñoo ngi tubaat baax soxna Ndey Touré ñoo ngi ziare di bëgg borom Tuubaa mi indi ndog yi ñoo ngi koy ñaanal tawfeex borom Tuubaa ak séeréem Fall yal na ko gàttandu yal na dégg wax dee waaye li na daa moo fi xit ma wax maaraamu jërëjëf mu maam Cheikh Ibrahima Fall jëwriñam nag di sëñ Ngunda Fall mii mu boole noo ñu ñëw fii pour bëgg a jooxal kàddi sëñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax ngeen gi nuyoo di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëñ bi mu ngi leen di sant bu baax ñun ñi nag kàddu gun fi jottuli rek kàddu sëñ bi la sëñ gunda mi lépp luñ ci juumit na ngeen nu ko jéggal ci xam ne nit moomatul waaye buñ sañan seenub xol sedd ci kon luñ ci juum rek ñoo ngi koy jéggal bu baax di leen xamal ne e, sëriñ bi mi ngi yónnee ak cantam ci yéen te jaare ko ci soxna Anta jaaj ak soxna si Mbàkke ak soxna Aida Mbacke soxna si Mbacke ñu ngi lay siyaare bu baax ñu ngi lay siyaare bu baax di ñaan saa borom mi yàggal la ci lii ngeen di defal Serigne Touba sa borom na leen ba ngeen am ci lu kawe seen jort te ndax loolu sax incha allah dana am ndax euh, comme bis bi ngeen ko defee tey nga xam ne tey bis bu rafet moo la rafetal. muy ñaar fukki fan ci koor gi nga xam ne bis bis ni ki tey la sëriñ tubaa jàkkaarloo la Cheikh Ibrahima Fall jàkkaarloo nag Serigne Touba ca ca Kajoor ne ko man day damaa bëgg damaa bëgg ku ma àggale ci yàlla sëriñ bu àgg ci yàlla laa bëgg ku may àggale ci yàlla sëriñ bi ni ko ñun de boo xam bu xaman kooku fu mu ne doonu fekk mun ko may damaa topp tànkam bam mu yow te ku ma ko génneel ma dem. kon bis yéen am ngeen xaas ni ngeen amee xaas mooy bis bi ngeen jël jox ko Cheikh Ibra maanaam li ngeen def moom kenn kenn mënu cee teg leneen kenn mënu cee teg leneen ndax damay wax ni ba Cheikh Ibra ñëwagul war ma amagul kilifa amagul dara amagul ay moromantee fi neen waaye ba Cheikh Ibra ñëwee rek lan xam nan la ñuy jëriñoo ci sëñ te te te te daana wax ni mm-hmm. bisimilah jàmm daan ne ah, tool sëñ Bamba bii de su dee su dee bunt daan bu dee tool may bunt bi ku jaarul ci bunt bi ak dégg jam la ku bët ak ak dégg dina la jam daan waaye nag lu yàgg yàgg de kër sëñ Bamba gi lu ma fi bawul du lu baax mbaa mbaa mbaa luñ fi sos la kon ñun bu ñëwee fekk yéen ngeen takku ànd ak soxna si Mbàkke Euh, am seen pasteur bi nekk fii di liggéey lii maanaam yéen waxuma dara mais ñun dangeen ngeen noo soññ ndax ñun Serigne Touba dama koy wax faral di wax ni bu fekkee am na alal. Cheikh Ibra Fall mooy alalam. Ah, góor waay Serigne Touba bu amee alal. Cheikh Ibra Fall mooy alalam. waaw ca ñi ci des ñëpp nag. Hmm. ay seexam lañ. Hmm. waaye ñooñu ñëpp nag li leen weer nu neex ak nangu Cheikh Ibra mooy seen jëwriñ. waaw neex ak kum nangu wér ndax lu ma la wax rek fu wér laa koy teg. na wér na. Hmm. dafa toog ci njaareem. julli fajar. ni sëñ Balla Coro damaa bëgg nga karmatal ma li ma li ma seexal su ma ñëwee tàkkusaan nag ma ko wax sëñ Balla yendu ca ba sëñ bi génn tàkkusaan mu daw ci kanamu sëñ bi xam nga ci ni leen sëñ bi yare woon mu daat koy tàllal kii bi mun ko comme wax nga ko bind ko kii comme bind nga ko xam nga ko wax ma ko sëñ Balla ne ko seexal nga junni ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn sëñ Balla daaneel man ko li ñuy bari bari de kenn ci am nga rëmul yàlla oh.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 يا ربنا صل وسلم سرمدك على الذي سميته محمدك يا ربنا صل وسلم سرمدك على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وأبلغ جملة ما تحتار له لديك إنك